ñu wax ni visite bi dafa sedd suñu xol ndaxte équipe yi depuis le 2 mars mu ngi fi ñu ngi fi di liggéey ndax site bi xëyu xëy mel nii donc dañu investir ñëpp liggéey taxaw ba mu mel nii ndax dañu ni woon xoddi ko balaa ngay rakkale dañuy defal site bi balaa ñuy am kaa tey jii xam nañ ni site bi jël na kaw rek ba jëlaale beneen partie Sénégal donc ñun loolu lañ doon liggéey te loolu moo ci am solo ndax réew mi benn bopp rek kenn mënu ko xar ñaar matériel bu mat moom daanaka amul fenn yi ñu yi dooree hôpital hôpital def nako té te ñoo xaar xaar doore ministère té dina ñew waaw mais lu mat à 100 pour amul fenn gis ngeen France gis ngeen États-Unis gis ngeen Italie la fa am donc ñun ñoo ngi sant yàlla bu baax ci li ñu am ñu ngi leen di topato bu baax sank amna kuma ku ma présenté nii muy Fatou Ndong mom moy yaayu malade yi su su xëyee suba nga muy génn hôpital bi minuit passé dara du manqué day topato malade yi bu mu mel ni ñu ngi seen kër donc ñun ñu ngi ciy def lu ñu man parce que Euh, afer bidyon bou ken, te den yon men ni yon nyo fited. Am nan yon kapasite 17 ri ak 2 ri de reanimasyon. Fim nek ni, euh, am nan yon, o total bi yon am, nyan ripras modes ki CTE bou kawrak. Me, am nan yon en solisyon yon hamni, minister moun kweyset, pou djerde doutre ka. Am nan yon kat yon hamni ki rejan bila, mwen nyen ti malati kawrak. Am nan yon fuku ak juróom-ñett yoo xam ni beneen région la jóge loolu moo ne ci site bi sept enfants waaw mooy fukk ak juróom-benn yi parce que boo nee fukk ak juróom-ñett yi dafa am ñaari góor am juróom-ñeenti jigéen juróom-ñeenti jigéen yi am na juróom-ñaar ñoo xam ne dañoo ànd ak seen doom loolu moo fi ne te loolu yëpp ñu ngi koy gérer ci kàttanu yàlla.